إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi gërëm sunu borom bi mu defaraate tawfiq ba ñu dellu si ci ron keppaaru xam-xam waaye ci ron keppaaru saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woowale góor ak woowale jigéen xam ne ci garanti bu bàyyi ko ci sunu borom subhanahu wa taala ci ni jigéen ñi dootuñu tegati ci seeni lupp di nampal ay gone yu mel ni saxaaba yooyee aw góor ak aw jigéen woo xam ni am nañ ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala te fekk ñi ngi def ci kaw suuf aw góor ak aw jigéen woo xam ne la ëpp ci ñoom am nañ garanti daañ dugg aljana te fekk faatoo gudd aw góor ak aw jigéen woo xam ne yàlla kontaan na ci ñoom ci fekk faa doogu mbokk yi suñu bëggee baax wala nu bëggee yàlla kontaan ci ñun exemplaire yooyu nga xam ne yàlla moo ko tiire ci loxol boppam loolee roy loon na ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum allah bu nu bëggee gindee dañuy gëm wala ñu mel wala ñu toppandoo comme na nga xamante ni noonu la saxaaba yonente bi meloon sallallahu alayhi wa sallam woowale góor ak woowale jigéen nga xam ni lan fasante woon ak kóllëre ak seen borom dañ koo matal kan mooy garanti bi suñu borom subhanahu wa taala te si laaya jooju ci la ñuy tàmbalee suñu bindab tey ci dundu saxaabi bu mag boobu ñu tàmbali woon muy Talha ibni Ubaydillah min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi nekkete yoote yoo rek am na ci ñu gëm yàlla yi ñoo xam ni lanu gënalante woon lanu fasante woon kóllëre ak seen borom ñoom matal nañ ko ci kaw suuf ba mat dëkk te faatoo ko allahu akbar mbokk yi ban seede moo gën a rafet li gën a sell xol yàlla subhanahu wa taala xool na ne ah yow day wax dëgg yàlla nag ay la yëg li nga fasan ceeb man def na ko subhana al malik al aala loolu de moo ko radi allahu anhum wa radu anhu ak di nga dugg àjjana ñett yi ñoo bokk ndey ak baay ku suñu borom xool ñu ne dangeen dugg aljanna jaarale ko ci laamañu sax yonent bi saa sallam wala ñu xool la ñu ne yow kat li nga fasante kóllëre sa borom matal nga ko wala yàlla xoolal ñu kontaan na ci yow man ni ñetti doom yi ñoo bokk ndey ak bàyyi bu ci waaye am xam na bu baax suñu borom ba ni min al muminin am na ci way gëm yàlla yi rijaalun aw góor foofu nag jigéen ñi bu ñu ñàkk yaakaar làkku arab dañuy wax rijaalun nga yaakaar ne ay góor la ñu waxal fekk déedéet rijaalun aw nit lay tekki foofu tekkiwul aw góor rijaal foofu kalima rajul foofu tekkiwul góor ndax su dee góor parce que day mel ni góor ñaa matal waaye jigéen ña matalul waaye li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi mooy rijaalun foofu la muy tekki mooy aw nit boo xam ni sadaqu matal nan dëggal nan maa ahadullah alayhi leen fasante woon ak kóllëre seen borom fa minhum am na te ñoo xam ne man qada nahbahu dee nañ allahu akbar allahu akbar fa minhum am na ci ñoo xam ne man qada nahbahu dee nañ yóbbaale ngërmaneel yàlla wa minhum am na ci ñoo xam ne yantadir ñi ngi xaar dee te dee yeeg seegul wa ma baddalu tabdila lu tolloog virgule soppiwuñ ko seen sinoo seen lañ si ñante woon ak seen borom loolu seede bu rëy la benn bis soxna jële ci Moussa ak Isa ñoom ñaar ñii xam ngeen Talha dafa amoon ñaari doom amoon na ak njaboot waaye ci biir doom yi boor am na ku ñu tuddee Moussa am ku ñu tuddee Isa Moussa ak Isa ci doomi Talha ñooy nekk li jëlee ci seen baay mu ni saxaaba yonent bi nii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn bi benn kaw kaw dafa ñëwoon ci ñoom ci ñoom ah léegi kaw kaw bi mu ñëwee gars yi daal di koy digal ni ko na laaj xam nga saxaaba yi ñoom dañoo amoon orma ci yonent bi ndax yonent bi gars yi dañ ko doon sonal di ko laaj laaj yu bari yàlla mu ne laa ko xaddimu bayna yaday laahi wa rasul ah ci suratul waaw ci suratul xad samia sunu borom subhanahu wa taala di wax ci ñaareelu phase la wala ci ñetteelu phase la te bu kenn yaakaarloo ak yonent bi di laaj lu dul damay jiital sax maanaam daal ci misaal daal léegi bala ngaa laaj ab laaj da ngay joxe ñaar téeméer doog a laaj léegi loolu yàlla nangu si ni ñuy joxe ñaar téeméer doog waaye liñ ci nag mooy nit ñi dañoo sonaloon yonent bi ci laaj laaj yu bari bu ko defee arab yi dañ daan saxaaba yi dañ daan kontaan am ganu kaw kaw xam nga kaw kaw li ci ëpp moom am téel lu mën a jax lay doon moom daanaka moom li gars yi ragal a laaj moom du ko ragal a laaj moom ñu ne naa ñëw ba ci yent bi ne ko man sama soxna si biig ci guddi wax loo xam ne yow da ngay nax sa jëmm parce que moom yoram néew si daal gars yi dañ doon yàkkam ci ak kaw kaw ñëw di ko laaj waa ji jóge ci àll ba rek ñëw ñoom moom da ngay gis sa gars yi yaa rasulallah yaa nabi yàllaay gis bu waaji di gis ko eh Muhammad yonent bi ni ko oo sallallahu alayka ya rasulallah xam ngeen lu tax bu doon def loolu mooy daa bëgg a wan nit ñi ak xoyal ak wàcc sa bopp xoolal suñu suñu suñu kilifa yi tey koo ci tàllaw lu woon defe naa lu nga war a tàllaw koo ci tàllaw lu woon tey bala nga man waxuma la moom waaye taalibe yi jëkkat ko sa noom waaye Muhammad mu ni oo mooy li kaw kaw yi defee fekk dëgg la sax loolu lislaam kenn du ko wuyoo waaye yonent bi xam na ni ki xamagul njàngale lislaam waaye gis nga mu ne ko oo ba mu wax soxlaam ba noppi dina ko jàngal njàngale mu set moo xam ne kooku doon ko waxati mu xam a doogum naan ko oo kaw kaw bi mu ñëw fekk yéen toog sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn bis benn waaye kaw kaw mos naa ñëw rek rek rek rek rek jékki yéen bi ah yéen yéen bi ne ko lan la mu ne ko sama jabar damaa xaw mu ne ko loxo mu ne ko maa ngi nii damaa xëy teg mu jural ma doom ci ñuul kon doom bi di turu ma allah borom ñu ne fa ngay nekk naan kon nañ dem ci gynécologue bi nan dem ci médecin ba nan xool affaire deret bi groupe de sang yeeg oman ci bi ah aade seen affaire yi nga xam ne kenn xamul sax kenn mënu koo jeexal ci affaire yi nan xoolal professeur bu mag bi ndax yàlla moo ko yónni yàlla moo ko yónni moo tax fa dinaa leeral problème bi mu ne ko sama toogal toogal waa ji toog mu ne ko lan nga mu ne ko sàmmkat laa mu ne ko loolu sàmm mu ne ay gileem mu ne ko am nga gileem gerte gileem mu ne ko waaw mu ne gileem yu mel nan mu ne ko am naa gileem yu weex am naa gileem yu xonq am naa gileem yu nangam nang mu ne ko gileem ko weex ko am doom mas nga am mu ne waaw mu ne ndax saa bu amee doom doom ju weex la mu ne ko déedéet am na doom ju ñuul mu ne ko gileem gu weex ko fu mu jëlee doom ju ñuul waa ji tontu daal di jub dem xam ne problème bi rek la woon du du ko yàqal sax day yàlla keneen parce que li nga réglé dafa war a bari sallallahu alayka ya rasulallah li nga réglé daa bari moo tax moom boo dalal waaye daal jug dem yoonam tëgul sax baat masala nga réglé bu doon ñu ne da nga ci am téeméer junni at waa ji ñëw mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah min min al mu'minin rijalan sadaqu ma ma ahadu allah alayhi ñooñu ñooy ñaan kan ak kan ñooñu gars yi laa bëgg a xam damaa bëgg nga wax ma gars yooyu ñooy kan man xabaar la yent bi daal bi ah boobu nag su ma saan am rek problème day am na ndax yent bi nee dama koy laaj fekk nammagu laa tontu wala fekk li nga laaj tontu ko arrangé wu la wala fekk li nga laaj tontu ko jotagut allahu akbar jàngalekat bu mag la woon sallallahu alayhi wa sallam waa ji ne nii léegi yent bi boo ko laajee laaj mu dumbuy rek saxaaba yi dañuy tiit ndax li leen tiitloo mooy dañu kii laaj na musiba laa tasalu an ashay'in tubda lakum tasukkum bu leen laaj loo xam ne bu ñu la ko tontoo rek musiba xaw la su ko defee gars yi dañuy tiit lan la ñuy tiit mooy dañ naan kii est-ce que liñ laaj war na koo laaj boo demee daal leen loo yonent bi waa ji laajaat ko yonent bi nii ba muy ñetti yoon sallallahu alayhi wa sallam yonent bi continué waxtaanam gis nga kon day féex xam nga bu doon dañuy laaj da ngay bàyyi ba dara bi jeex nga doog a laaj waaye day ñëw fekk yonent bi jàngale ci diggu ko yaa rasulallah daal di dagg jàngale xam nga loolu wax dëgg yàlla ko gisi da ngaa war a naa dañ xaar léegi yonent bi ci diggu waxtaanam mu continue ba waxtaan wa yegg nag nekk laaj bi war na koo tontu waaye tontu baa jotul woon mu ne ana ci doon laaj mu ne ko maa ngi nii mu ne ko loolaaj mu ne ko dama bëggoon a xam góor ñooñu ñooy ñan mu ne yonente bi ne Talxa kii kii moom ci la bokk daal di joxal Talxa ne ko kii ci la ci bokk allahu akbar kon saxaaba yi niñ bare léegi ko ñoom diw laak ñoom diw dëgg la am na ñeneen ñu ca bokk waaye yonente bi daa xool Talxa ne ko kii ca la bokk wa minhu man xadaa nahbahu ah gars yi moom ci lañ bokk ah maanaam bokk na ci ñi nga xam ni maanaam fasante nañ kóllëre ci fee fas def nañ lan fasante woon ak seen borom kóllëre waxoon naa leen ci dal ko bali weesu lii Talxa mooy nit li muy def wax amul foo xam ni ci yaramam lu dul caw caw jaati dal na wala jam-jam xëy mbokk yi mën nañ benn caw caw jaat ci ab yaram benn caw caw jaat tey boo jëlee waram bi rek mu caw la jaat li nga toog ay weer nit ñi di la seet ndax benn caw caw jaat su fekkoon ni benn waaye dafa doon xeex ak yow rek mu jam la baax ay weer bi nga ko tëdd nit ñi di la ko seet Talxa ne na wallahi keroog samay awra ci jaati dal na ci benn doom bu jigéen nee na fanweeri jam-jam ak juróom wàññi naa ko yoo xam ne daal na baabi kaam allahu akbar lan moo ko yóbbee défendre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax xam ngeen ni damay wax mbokk yi ma ne leen doy na ci Abubakar ni mu baaxee ni mu ragalee yàlla ni mu baree kër nga xam ni boo nee Muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam sax na ci Abubakar lay njëkk a demee wallahi ko Abubakar kontaan ci yow ba toog di la way waaw kooku ban diplôme nga أبو بكر الصديق الصديق الأكبر صديق هذه الأمة بعد نبيها محمد كم قول فتبين الله قرآن في يوم الوي وكم يوم الوي أبو بكر الصديق ده من قرآن طلحة كوي من وطلحة يوم الشعب وأتى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدتي وقام بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فسنتي Talxa daal dëgg dëgg Uhud yaa ko moom loolu la ko doon wax suñu ma daan la fàttali ko bisab Uhud te ni zaaka yawmu kullu góori Talxa bisab Uhud moom Talxa ko moom maanaam bu amul lu gën li ñuy séddale ñu ni jox leen lépp Talxa ndax ni mu doon défendre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba jaati yooyu fekk ko ci Abubakar mu ni Talxa day bisab jafe-jafe yam day wax dëgg yàlla yiiroon na yonente bi di ko dimbali ci waxtu woo xam ne xatoon na lool tamit ah mu ni défendre na ko baare ko ak loxoom ñaari loxoom ya far benn ba ni tëppit benn ba ni tëppit mu far fa jaaree ñàkk ay loxo lii la ko Abubakar doon wax radiyallahu anhu wa ardaa kon Talxa ku bëri ay gëneel la doom bi ci def mu ni difaahu an ixwaanihi wa ixsaanu zanni bihim ah difaahu an ixwaanihi wa ixsaani zanni bihim défendre boo xam ne daf koy défendre ay mbokki jullitam dafa doon défendre ay mbokki jullitam waaye dina fekk njort ci sa mbokki jullit bind bu tooy xëpp ngi ni boo xam ne ñun ñoo ko moom di défendre sa mbokki jullit ndax mooy yow yaay moom di rafet njort ci sa mbokki jullit bañ a ñaar ñoo wax ci ñoom di jot lu ñaaw ndax yaay moom mooy yow wala talmizu anfusakum la wax bul xas sa bopp nga nit nu muy xasee sa bopp mu ni sa mbokk mooy yow yaay moom moo tax bul xas sa bopp kon bul xas sa mbokkum jullit Malik ibn Abi Amir mu ni benn waay dafa ñëw ci Talxa ni ko Talxa man daal dëgg dëgg dëgg mbiri Abi Hurayra ngi bëgg a luus ci man man daal Abu Hurayra fene maa ngi koy commencé ci sone yow Abu Hurayra bërki dee moo njaay la tuub atum juróom-ñaar am na ñu ni jeexantalu atum juróom-benn am na ñu ni tàmbali atum juróom-ñaar gudd gudd gudd ñetti at laa ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ati weer daga mat na ay weer waaye ñetti at yow laa ma yonente Abu Hurayra naka la mën a tuubee ñetti at ci kooku fekk mi ngi xanaa rax yi rek di wax yonente yonente bi nee na yonente bi nee na yonente ah man dëkk dëkk mbiri Abu Hurayra ñu bëgg a jaaxal allahu akbar bu doon ñu na kenn ku ci nekk da ngay fas yéene di wàcce sa mbokkum julit di ko waxal ay saxaan waaye réer doo ko défendre mu ni man damaa seet Abu Hurayra damay jékki ci moom ay mbir yu bari yu muy nettali te yéen ñii yàgg ak yonente bi di ngeen ko nettali affaire bi jaaxal na ah Talxa ni ko déglul ñun ñoo bokkoon lenni ay kër waaye ñun dañoo nekkoon ay commerçant ci sàmm dañ daan xëy liggéey te Abu Hurayra faqiir la woon boo xam ne amul métti amul daa moom day xëy rek toog ci buntu kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aw ma lu may werante ci ni kon war naa mën a dégg lu mu déggut ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te maa ngi am yaakaar ci ni ku tuuti ngëm yàlla nekk taxal ñu woo waxal yonente bi lu mu waxul sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar kon leen hadihi alqaidatu aljalilat alazima xaaja bu rëy boobu abu hurayra amul woon lu mu doon def bis buñ dikkee ci dundu abu hurayra lu yéemu ci yàlla abu hurayra nee na diggante min baru yonent bi ñii at yi aadika xëm naa ba ba tey ay yoon di kat di kat bi ñu naan jàpp leen Abu Hurayra ay rab a ko jàpp mu ne maa ngi dégg li ñuy wax rab jàpp ma de dama jàng jàng jàng ba xiif awma lu ma lekk ma tey di xëm allahu akbar yéen diggante raw bu yonent bi ak ñi ay ta xëm naa ba ba tey jàkka yonent bi ñii mun xëm naa ko ba tey daama di kat di kat ñu naan jàpp leen jàpp leen ay rab a ko jàpp mu ne rab jàpp ma li ñuy wax lépp maa ngi koy dégg damaa topp xam-xamu xadis di wër di wëraat di wëraat ba aw ma dama lekk ma dox dox ma ne dama dox ma daanu xam allahu akbar mu ni ko Abu Hurayra amaan na fii bi na lu déggul te xam naa ni ku tuuti ngëm ne ci sa xol doo waxal yonente bi lu wax mbokk yi est-ce que waxuma la sax suñu diggante ñun waaye suñu diggante ak suñuy borom xam-xam est-ce que ñu ngi am orma ju mel noonu ci ñoom ah parce que xam-xam bu baax la waaye man xam jox Abu Hurayra bi doon xam nañu Abu Hurayra bi sama borom xam-xam la est-ce que ñun dëgg dëgg dëgg suñuy borom xam-xam jox nañ leen dëgg loolu déedéet wallahi allahu akbar gis nga gis nga gis nga antimicrobe antimicrobe ci yaram wallahi borom xam-xam yi ñooy antimicrobe ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo xam ni ku déggaa jógee bu na lay agsi ci xeet bi nga xaare ko ba mat ko koo xam ni guddi ak bëccëg ah da ngay dee ngir di xalaat loo xam ne mooy jëriñ umma bi wallahi yaa ngi jiw juuman ba ñëpp xam ne njuumte la kooku dañ ko ko war a nëpp nëppale la laaxal ko waaye dafa mel ni ñun rek yëkkati ay ay ak a lawte lawte ay borom xam-xam seeni njuumte dafa mel daf noo neex wallahi benn wax day wax lu am solo mu ne luhumul ulama masmuuma yàpp borom xam-xam yi yooyu dañ koo tooke yàpp wuñ tooke nag lekk dee la xoolal boo xam ne anti microbe la ci xeet yi problème bu gën a ñëw rek mu réglé ko ci ñaari minutes subhaanal man jël sunu borom xam-xam rôle bi muy joué moo tax benn sin yëpp bu mat saay saay bu mat xaaru na rachid da koo jàpp nar koo rey waa ji dégee taal xaaru na ni ko looyee taal mu ne ko damaa xam ne bu la neexee ne man nga maa rey waaye lu ma fukki junni xadis fent naa ko yu taxit fen ko dugal ko ci biir l'islam yaa ngi may rey de waaye dina li des de xaaru na reetaan noonu mu ni ko waaw yoo looy rek mu ni ko dangaa fent ay xadis bu dugal ko ci ñoom Abdullah ibn Mubarak ñoom Awzaay dinañ ko xeeñ ko comme ni nit ki xeeñ soofar ko bu firnde ko comme ni nga ko dugalee allahu akbar subhanallah xoolal borom xam-xam ci jamono yi mag ñu yàgg ja sës loolu ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah am na imam ju mag di ñuy wax ah al imam al baghdadi moo taalif taarif taarix baghdad al xatib al baghdadi benn bis yahudi yi juif yi dañoo fexe ba créé benn lettre xam nga yonent bi ba tey boo demee ci musée yi muy mataaxi yi am na ay lettres yu mel ni yonent bi moo ko bindoon nga di ko xool juif yi fexe ba créé benn lettre boo xam ni dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko bind signé wane ne suuf fii ci Madina ah juif yee ko moom yàgg-yàgg nañ leen ko delloo allahu akbar biñ ko di amirul muminin mu xool ko ah lu ci fexe mbind bi mbindam yonent bi lay doon tampon bi tampon bi yonent bi la fooy ba màgget na ban période moo ñuy wan ni lii yonent bi def boon bàyyi ko ma sàmba naan lii ma demba naan lii kee naan lee kee naan lee biñ di koy wax imam al imam al xatib al baghdadi dafa xool booy bi rek ne lii ay fan la xool borom xam-xam allahu akbar mu ne lii ay kàcc la ñu ne ko fan firnde nga am ci ni kàcc la mu ne woo leen mbooloon ma jëlee ci ëtt bi ci laa koy mën a wax mbooloon yépp daje bi ñu ne ko lan moo tax ay kàcc la mu ni ñaari mbir moo lay wan ne lii ay kàcc la ndax ñi ko doon defal muusuñu buñ jàppoon duñ def lii muy dañ cee def tampon bi dañu def ci biir teene yi Saad ibn Muaz dafay ci Muawiya ibn Abi Sufyan te Saad ibn Muaz ak Muawiya ibn Abi Sufyan fekkantuwu ci lislaam ndax Saad ibn Muaz faatu na avant Fatxu Makka te Muawiya mi ngi tub avant Fatxu Makka mi ngi tub ci Fatxu Makka ci tuubagul mën na nekk seede ci yonent bi ka dee mën na dellu ci seede kon lii moo lay wan ne ay tamit xoolal xam taarix xam histoire bi amee solo muskila moo xam ne jaaxal na borom xam-xam yi waaye nii la ko réglé allahu akbar loolu nga koy toppee borom xam-xam yi njëriñ bi ñu amal umma bi waaye déedéet tey boo jékki-jékki bi dégg ñu ne borom xam-xam sàngam kat moom kat daa def nangam dëgg la moo ko def mën naa sax moo ko def muy njuumte allahu akbar yaa xam ñun dañoo war a ornaal dañoo war a suturaal tey am lox si na bann bihim ñuy rafet njort ci ñoom ñuy rafet njort ci ñoom soo toppoon misaal yi ci mën a joxe dafa bari lool kon li ma bëgg a wax foofu mooy diggante gis ak mbokkum jullitam rafetal sa njort dafa war a am saa bu dara am ñaaw ci sa mbokkum jullit sa première position mooy du dëgg loolu gëw ma diw ak ni ma ko xamee ni mu ragalee yàlla ah ah déedéet loolu diw du ko def loolu du dëgg gëw ma nga di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba kenn muy nekk dëgg nga ne lu may def ma ne la li ngay def mooy jàppal ko fan fanweeri ngaan amaana daa ci nit dong la saxaaba yaa ko gën a ragal yàlla amaana nangam nangam nga dem julli ci ñaar rakk nga ñaanal wallahi rabbil izzati wal jabarut ñun ñun li ñuy woote woo ci askanu saxaaba yi li ci yëpp wallahi ay kàcc la da ngay gis kenn ci ñun dafay sawar xam ay mbokkum jullitam ko gaaw na ko diw yëg na ko diw yëg na ko diw yëg yàlla bi xoolal bu doon yow ay jooju ngay law ci law tee su fekkoon yow la est ce que di nga bëgg sa mbokk jullit di law ci law tee déedéet da ngay bëgg ñu xam ne lu sutura société l'islam bi léegi looloo ko taxoon a neex da ngay gis ku def ay ju rëy di sol ni sax musiba musiba ju rëy waaye da ngay gis da koy suturaal day ñëw ni maa baalu aqwamin faalu kada wa kada xaw ma lu dal ñoom diw ñoom diw rek lay wax kan mooy diw x lay doon kenn xamut ko moom li def nangam ak nangam nañ ragal yàlla nag waa ji jot ñetti loolu naa leen ci xisab Moussa ba kon yaa ngi bëree sutura Moussa dafa taal ay loxom ñaan yàlla mu taw suñu borom ni ko du ma leen tawal ndax bàkkaar kat mag a mag a mag moo nekk seen biir Moussa mu woo gars yi ñu leen ci def bàkkaar na tuub gaaw xam ngeen ma def waa ji daal di sëgg ci biir mbalaanam ndeysaan jooy daal di tuub bi mu tuubee rek taw bi soo taw ba tooy xëpp Moussa ni yàlla lu xew mu ne ko bàkkaar kat lii di ma taxoon ma jee ma taw moo taxaat ma taw mu ne ko loolu def mu ne ko tuub na tuub bu dëgg boo baal Moussa mu ne ko kon de kooku ku baax la wax nga ko kat na sunu borom ni ko ay Moussa yore daal yaakaar xel waay Moussa naka laa lay waxee koo xam ne ba muy def bàkkaar ma di ko sutural yëgoo ko ba mu tuub ma di la ko wax dama la ko wax allahu akbar huwa sattar huwa sittir xoolal yàlla muy suturalee ay jaamam te kenn ku ci nekk nag comme ni ma koy faral di baamoo yàlla xamal na la ci ay ayib loo xam ne billahi rabbil izzati wal kaaba ah soo ko yàlla waxoon nga tudd ba nga dëkk laa wax yaa ngi lu bon lu sim lu ñaaw loo xam ne sa jabar ko bëggoo mu xam ko sa jëkkër ko bëggoo mu xam ko yàlla tàngal ci sutura yàlla tàngal ci sutura bu xawee sutura mu xiba dal comme julit noonu lay def ak mbokkum julitam lépp luñ la waxal sa mbokkum julit bul gëm safaan luñ la waxal ceeg naar na gëmal loola kon bind lii war nañ koo jàng ci bam beneen bi ci def mooy maanaam ñu xam ni rawatina nag bu fekkee dafa jëm ci borom xam-xam yi ulaayika ma ulaayika ma taabixu dujaa gaa yi nga xam ne ñooy lumière yi projecteurs yi nga xam ne ñooy tàmpe di leeral umma bi subhanallah ñaata ci ay masaahil yu lëj ñoom ñoo koy réglé ñaata ci ay jafe-jafe yoo xam ne umma bi waral na koo am diggante bu gàtt ñu réglé ko kon ñooñu wallaay ñaanal leen yàlla di rafet njox ci ñoom di leen dëppal seeni ay di leen siiwala seen baax baax te di leen ñaanal yàlla nag mu defal leen ak tawfiq wa sabat wa xusnul xaatima loolu moo war suñu diggante ak ñoom kon loolu des na ko jàngee ci bind xalxa bi ñaareelu tomb bi wala ñetteel mu ne infaqu ko fi sabilillah beneen tomb gi nag bu jara dut ay baaraam ñu doon dépense ci yoonu yàlla nun ñuy absolo sunna tey alhamdulilah bi ëpp si ñun amuñu problème aqida aqida amuñu problème c'est-à-dire que moo ko sut lool waaye tane nañ ci moom bokkaale woon alhamdulilah lu bari ci ñun dañ ko def amuñu problème julli mbaa woor ay woor sunna mbaa melokaanu sifaatu zahir melokaanu bit amuñu problème waaye xam nga yan problème lañ am problème jikko ak problème joxe ñaari jiim yooyu ñun moom lañ am problème jikko joxe jiim boobu ñuy maas ci suuf ak jiim ba ñuy maas bamma ñaari yooyu lañ am da ngay gis ku ragal yàlla ku góorgóorlu wallahi boo jëflanteeg moom rek lépp kuy askanoo sunna nga gis koo xamante ni sawaay ci wàllu wàllu am-am yàlla wërsëgal na ko boo jëflanteeg moom bu ngeen séqee ñaar dërëm rek nga séq ko allahu akbar ñaar yaayam daa bokk ci saxaaba yaayam jikko joxe jikko joxe discours bi jàmbaar la ci paspas jàmbaar la ci julli waxtu du ko jullee kër lépp feebar nga dem jàkk dem waaye jikko dafa sàggan lan lan moo effort bi nga def ba àq nga àgg foofu lu tax doo ko def jikko yegg foofu lu tax nit ñi jëflante ngeen di la sib ngi dégg ku naan man de yow rek laa sawar na jëflante bi waaye nit wuu wala li ngay dégg sax da nga koy rusa wax moom ñi ma ko wax ci koo xam ne naa ni mooy askanoo ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam est ce que du yow yaa ngi toon yonente bi sallallahu alayhi wasallam te loolu tax la gën a jege ak xul ila xul mi aqrab ndax yaa ngi publicité ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu mu nekkul woon ndax yow nit ñi yaa ñëw indi benn indikat yi indi benn mandarga benn alaama buy wane ni yow mii yaa gëm ci yonente bi rek kon ça veut dire que loo indi ñun dañ naan ci yonente bi la bàyyi day indi ay jikko yu ñaaw di ko askan la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngay indi ay jikko koo xam ne ngay xir ci alal xir koo xam ne ubaadu darahim wa danaanir wallahi da ngay gis ay nit yoo xam ne bu ko waxee buñ ko waxut ubaadu danaanir wa darahim ay jaamu kati dinaar la ñu dërëm ndax nit du taxaw naan jaamu kati dinaar laa wala jaamu kati dërëm laa waaye da nga koy jëf waaye ungur ila saxaaba yaakaar naa Ousmane ni ñu génnoon gisoon ngeen ni meloon ci infaq keneen a ngi nii muy Talha Talha ibn Ubaydillah Qabisa ibn Jaabir nee saxibtu Talhata fama raaytu aata li jasiili maalin min gayri masalatin minhu mu ni gisuma koo xam ni dafa mën a joxe ci alal di joxe ndoom lu bari ba mel ni Talha allahu akbar Moussa doomam nee na benn bis ci réew yi ñuy wax Hadramawt Hadramawt réew bu yàgg utura boobu na Hadramawt soo demee ci histoire borom xam-xam yi dañuy wax ni ab yonent moo ko mas a jaar xam naa man naa fàtte man nii maa fàtte waaye benn yonent moo ko mas a jaar maa fàtte ban yonent la wala nit ku baax boobu ba mu fa jaaree rek ndeysaan dafa yegg sañ ci place ba rek dee ñu ne xadra mawt ñu ne xadra mawt mooy xadara wa maata xadara teew na wa maata mu dee ñu ne xadra mawt teew dee dëkk booba ci lëju la ñu ubbi woon xalal ju bëri bëri bëri bëri bëri jóge ba ñëw ci jullit ñi loolu la ñuy tuddee ci lan ci wàll am maana loolu la ñuy tuddee màng mooy jullit ñi bu ñu xeex ak seeni noonu ba am fa màng andi nee na fa baata laylatahu yatamalmal nee na Talxa ko guddi yëpp day sax di kat kat rek kat kat rek mel ni ko am problème soxnaam daal di dikk ni ko waaw yow lu xew lan la li ngay kat kat nii ñu ko siburu lan la mbokk yi billahi aleykum fan ngeen mës a gisee ku yàlla wërsëgal ay million nga tiit bay kat kat yi yàlla wërsëgal ko ay million mu toog ci guddi gi kat kat rek di kat kat rek soxnaam ni ko lan la mu ne ko man day jiit yàlla damaa wërsëgal ci alal loo xam ne damaa tiit ndax sama bopp naka la am jullit bu mën a gëm yàlla di fanaanoo lii lépp ci alal dafay mbokk jullit nekk bu xiif loolu jaaduwul rabbi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaata ci ay jullit Talxa tey boo leen fekkee woon da nga jooy ba sa xol bi dagg yaa Talxa nekk seen tey nga dellu bi nekk ay jullit yoo xam ne ñu ngi def compte banque boo xam ni wallahi ay milliards ca nekk te soxlaa lu yaa Talxa nekk seen tey nga dellu bi fekk nit ku am alal ku am alal ñu gaaral ko feebar ba tëdd hôpital mu koy joxe ay ñaari junni ñetti junni ba kooka dee te fekk ñàkk luñ ko fajee bokk na ci li ko tax a dee yaa Talha nekkil day nga ñëw fekk koo xam ni mi ngi bloqué ci ay million loo xam ni wallahi mi ngi gis dëkkandoom këram tàkk ba jeex muy dund ci taw bi ci ay jafe-jafe mu di ko gis yaa Talha dellu sil tey nga gis waa ñoo xam ne xam nañu dëkkandoo bii day lekk léeg-léeg sombi moom mu am lu ko ëpp ci du ko dimbali. yaa bëri dellu fil nga gis ku am jafe-jafe gis ku mbokkum jitu mu amee million mu yëkkati ñaar téeméer di ko jox yaa ngi ñaar téeméer yooyu téye ko amul benn njëriñ. xanaa ngaa bëgg a nit ñi ay ay yàlla xeebu jéemu bañ a xeex dana xeex kay kàddu bu nekk mën koo wax yàlla dafay xeeb naka lu ci amee ay millions muy tax ay ñaar téeméer ñaar téeméer lu lu muy jëriñ ñetti milliards yi nga xam ne daal la daal la daal la boo ko dindee mu jeex te wallahi li may wax wallahi kay man kay may wax li may wax li am ci société bi laa wax gis ko xam am na ay millions ay milliards ñu gis ko problème boo xam ni moom ci jëmmi boppam ah waxuma la mun laal waxande koo xam rek mën na koo régler waaye déedéet ay ñaar téeméer ak ñetti téeméer maa ngi fàttali ko am na mbokk mu ma tabal jafe-jafe ñu dem ci kenn wallahi biñ génnee lam joxe dama ni mbokk yi nañ ko delloo mbokk yi ma déggal wallahi ab bilaaj dama ko doon ñu delloo ko koo xam ne yow mën nañoo dund dund ñu gaal la muskila boo xam ne luñ la lu mel ni feebar nit feebar ba tëdd hôpital sonn ñu waaj a dee ngay yëkkati ay ñaari junni rek ay ñetti junni di ko jox bu ma dégg loolu da nga koy delloo bu ak bu mën a million ay milliards nga yëkkati ñaari junni ñetti junni kii may wax noonu la dee mbokk mi noonu la dee suñuy loxo la dee ñoo ko suuf xoolal loolu ci koo xam ne yow ala yaqinin kaamilin kaamil maa jazmin wa xilfin billah ci la ñàkkoo di ko léeg-léeg julli ñii duñu tey xolam xalxa dellu si woon tey wallahi li muy metti metti ci xol nag ci wet ga am na ay gaa yoo xam ni subhanallah alazim li gën a neex ci xol gën a seetal xol ba nga nelaw ndax kontaan ci bëgg yàlla mooy dañ koy def di ko laaq naay gaa yoo xam ni ah saraxekat yi guddi lañ wallahi leen naan la ñuy joxe di seen loxo tay jox di ko dëgg seen loxo càmmoñ gaa yooyu ñu ngi fi ba tey xasal ah ñu ngi fi xasal ah ñu ngi fi kon bal soxna si ni balam la mu ne ko man alal ji naka la julit mën a fanaanoo alal ji day nii mbokkam julitam nekk ci jafe-jafe wa niama zawjatu kaanat soxna su baax la lu ko soxna si wax loolu koy wax dëgg yàlla bal amul problème ndax yi ci wax ñu lay andi yëpp nga taaj ko séddale ndax lu nekk nga dugg ci xaalis xam nga xaalis bi nekk woon xaalis ak kay ay groupe la woon ndax lu ne nga yëkkati joxal diw joxal diw joxal diw joxal diw joxal diw allahu akbar mu di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba fàtte boppam soxna si ne ko waaw ñun nag lu mu si nar a am mu ne ko ah wax nga dëgg de yëkkatil dataalal bi nga xool lu ci des ñu jël ko mu xool fekk junni moo ci des junni ah ñu jël Aïcha boppam na ko am ay junni di ko sarxe fekk daa woor sarxe sarxe sarxe ba fàtte lu mu ndogom jaam bu jigéen bi doon jotee mu ne ko jox ma la li nga mu xool xool ni ko dara desu fi mu ne ko yow xanaa da yaa doon séddale ci ngoon lu tax bàyyi woo fi lool nga mu ne ko boo xaw ma sax waaye dama xale ci génn allahu akbar mbokk yi xalaat ngeen ku am alal di sarxe di sarxe di sarxe ba fàtte fàtte juróom bu mu yóbbaay pour jëndee ko wuroo café ndog nga fàtte loolu yaa ngi woo nga fàtte loo lekk tey yow nga sarxe waala xalaat ngeen loolu moo tax ñii ñii ñii ñii li leen yàlla waxal dëgg dëgg dëgg dëgg ko méritoo gis nga alal daal di xëy ndeysaan commencé di séddale noonu la ko séddale ba alal di jeex tàkk beneen riwaaya ngi nii Soxda bint Awf Soxda bint Awf riwaaya bi ni mu tëddee maa ngi yaakaar ne soxnaam la woon tamit nee na benn bis damaa fekk Abu Talha dama fekk Talha mi ngi toog nee na maa fekk daal yaram wi jee wét ndeysaan mu mu ñàkk sawar daal ma ne ko maanaam lu xew xanaa dana am la metti sa waa kër mu ne ko déedéet laa wallahi wa niama xalilatul muslimi anti yow kay soxna su neex a nekkal la soxna su baax ba aw ma benn problème sama diggante ak yow mu ne ko lu am mu ne ko walakin maalun indi qad gamma nii alal la mu ma dikkal alal alal ma dikkal xaw ma fu ma jëm ak moom xam ngeen yéen fasal bi muy faatu ne woon na ndax soxna yi ki gën a gudd loxo mooy njëkk a faatu fekk gudd loxo namu ci guddaay bii gudd loxo mooy mën a joxe gudd loxo mooy mën a joxe ah Zeynab bint Jahsh moo njëkk a faatu ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam Omar ibn Khattab ndeysaan dafa am alal ju bare bare bare bare bare bare bare ju ñëw mu séddale soxna yonente bi kii ñaar fukki junni kii fanweeri junni kii téeméeri junni kii nangam kii nangam bi ñëkk Zeynab bint Jahsh mu jooy mu ni séddale alal bi mu fi naree fekk déwén yàlla naa faatu bu ma ko fekkee man soxlawuma alal yi àddina balaa at maa dellu si mu dee moo njëkk fàtte bi xol yaa xi ñii niñ doon dawee alal maa ko bu yëkkee seen loxo nag yëpp suuf koy dugal Suleymaan ibn Abdul Malik dafa dugg si ci jàkk ji di amirul muminin fekk benn waay magum solo bu mag di julli julli ku ëpp dal mu toog ci kaw minbar bi di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba julli di yegg mu yëkkati mbuus ab set jox ko su xam bi ne ko dama joxal ma ko kële man daal dëgg-dëgg damaa xamut ñii yan nit lañu woon loolu bu ñu dañuy kontaan waaye yëkkati alal ñëw di ko ko jox bi mu yëkkee mu xam ne lii alal la di bàyyi ko ci buur te ñoom alal taxul leen woon ci mu ne ko am mu ne ko lii nag mu ne ko Souleymane Ibn Abdul Malik mais Amir moo la ko jox mu xam ne fit la dikk na musiba dikk na mu ne ko man mu ne ko waaw mu ne ko déedéet wax dafa jaawale bi est ce que jaawale bi fekk xam na ni moom lay wax waaye daa bëgg a daw mu ne ko man déedéet dama laajal mu ne ko dem tegal teg ko fi te nga dem laajal ko kan la wax waa ji teg ko fi wane ginnaaw rek mu tëru génn bàyyi ko mbuus ko daw ndax bëggul alal yëf ci moom wallahi la mu bind ma ñu ne ñetti fan fanaan xel ñetti fan ndax dafa xamoon ni amir balaa ñetti fan dina génn Madina ñibbi mu toog Madina ñetti fan ngir bëgg amir ñibbi yóbbaale alal ji ba mu yegg ci man allahu akbar xoolal yii nii Talha noonu la meloon Talha ibn Ubaydillah mu ne alal dafa maa dikkal joo xam dafa maa jaaxal fa qul maa yaqumu loolu koy jur mën a jaaxal alayka bi xaw mi am nañ mbokk te dana ko mu yees donc yow seet la subhanallah rabbil ala mbokk yi est ce que defaatal wax fa est ce que soxna yaa ngi wax lii seen i borom est ce que soxna yaa ngi wax lii seen i borom boo xam ne yow problème bi nga amal sa soxna mooy jëndal ma wax jëndal ma nangam sama daal yi dagg na ba ma la ko waxee ba tey ngay tey tey waaye baax di xuloog moom ngir lan ngir loolu ngir mbirum àddina sama nangam nangam ci ba ma la dëgg ci loolu portable kenn xamul fenn nga bañ lii ngay xulul sa soxna lii ngay xulul sa borom kër lii ngeen di xuloo yow foo xam sa darajay iman xuloo lii moom la moo moo foog nga toll yaakaar yi ila yawmal qiyaamati ngay soññ sa borom kër ci lii ko xam ne yow yaa war a nekk numéro un ci di ñaax sa borom kër muy joxe ak mu ragal yàlla nag yaa ko gën a jege li nga xam ci moom kenn du ko xam ci keneen kenn du keneen du ko xam ci moom waaye nag li xol di naqar naqar ci gii wet kon day ñe moo tax foo dem rek wallaay danaay répété ay baax dee leen ko jàmm saa bu la baax fee xamal ni yow la ci am nañu baax si jamono yi ñuy dund allahu akbar man xam naa mbokk moo xam dafa ne ci biir këram am jafe-jafe problème yu métti métti amut lu mu lekk lekk nga xam ne ci bu ñëwee lan mooy nécessité ma ne lekk ak naan ak mooy mbokk mais ma ko nekkale ci kii mi ñëm waaye an góob na mu ne mu toog ci filiyaanam ba mu yàgg benn xaritam bu ko yëpp daal di ñëw daal ne ko diw mu ne ko naa mu ne ko lebal ma cent mille te boo bañee boo boo ma lebalul da ngaa laal mooy affaire mii nag yooyu rek lebal ma cent mille te soo ma ko lebalul xam naa ne da ngaa laal waaye am nga xam naa ku gàttal jot ci moom la bokk nañ te foofu amul sax lu mu añee keroog nee na toggul añ nee na comme yàlla du ko bindi mu bañ a tas yaakaar mu ne ko waa toogal xaar mu dugg ci marché bi ko gën a jege fekk benn commerçant ni ko abal ma cent mille jéem daf taw xoolal bii diggante mu jël cent mille bi ñëw jox ko mbokk mbokk mi ne ko gis waxoon naa da ngay tey tege waaye soo laaj gerte nga laaj ci rek mu ni mu ngi wax ma noppi rek fekk dama xaale heureusement yàlla ubbali ko xaalis la bu ñu ko waroon yóbbante ñaari fan mu delloo si waat nee na bi ko delloo si nag ni ñu nekkaat amul lu mu nekk mu wax soxna si ni ko waa man comme lekk naa ko te waa ji delloo si na ko avant nag ba ma ko joxoon yee nañ ko jël ñu ñu lekk soxna si ni ko wallahi boo ci liggéey dërëm jox ma ko mu tabax ko baal nga ko yobal xiyam nañ ñu wallahi lii ñu tama ko nekk bi kuy dund kooku kenn la keneen a ngi nii ko xam ne borom këram daa am xaalis yàlla dafa am lu mu ko wërsëgal mu di ko wàññi xam naa biyee yi bari mu woo soxnaan ne ko kaay wàññi li ma ko soxna si wàññi di jooy rek di wàññi wallahi wallahi li may wax di wàññi di jooy rek di jooy fekk borom kër jàpp gi après ma daal di koy laaj te yëpp ay nit la yu la koy liggéey xëy na nit ci mën na ko bañ a xam waaye boo nekkee daa yi nga xam ne lu bari dañ ciy jot doo jooy doo bëgg nga ragal yàlla ni nga def ba yàlla wërsëgal li na nga ko def ba yàlla wërsëgal la aljanna wallahi rabbil alamin ñoo xam ñi may nit kenn jéewu ci ñëpp ngi dund am ñun waaw ñàkk solo lool nag di li pax li paxi nag nga di leen xool jàpp ni yàlla def iman fekk yaa fi am na loo xamante ni maam lu sedd xol la seen digganteeg sa borom lahu ma rabbihim asraar wa asraar seen digganteeg seen borom am nay sew sew yoo xam ne kenn xamul kenn xamul man xam naa koo xam ne xale yaram xale yaram dana incha allah al allama ibni baas doon def al allama ibni baas daana lekk xale yaram te weer deewu xam nga nu mu doon def benn waa ji dikk laaj ko mu jox ko keneen laaj ko mu jox ko keneen laaj ko amul xam nga nu muy defee danaan demal direction boo demee mu signé benn këyit weer wu dee comme war nañ koo fay da doon liggéey muy nañ jël sama salaire sa sa xel ma weer wi day dee léegi moom duutu xamat foofu dara xel man xam naa koo xam ne day joxe di joxe di joxe ba joxe paasa dox liggéey yi ma yor nit yu am na de ay nit yu ñuy dundandoo amaa dafa boo demee sax ñenn ñi dañ leen di gis léeg-léeg di saraxe di joxe ba joxe sa paas moo tax gis nga booy déggee amaa na seetaan ah ñii dañ saxaaba yàlla kenn du mën a mel ni ñoom fii moom maa ngi am nañu mel ni ñoom xattan xattan ay nit yoo xam dañuy woor ba ngoon duñu am lu ñu dogoo man xam naa koo xam ni moo ma nekk ci gémmiñam nee na ma dana woor na ay gis ba ngoon jot dina am lu ñu dogoo fukki dërëm la ñuy am gisee fukki dërëm gerte caax boo xam ko lekk loolu ku ma xam na koo xam dafa tàggat ay waa kër ci muñ ndog day jot duñu am lu ñu dogoo xëtt jot ka daal ko ñu koy continuer woon kon loolu ay mbir la yoo xam ne ngi am xattal aan ba tey Allah kon maanaam mbir yi ay mbir la yoo xam ni soo gisee ñu ñuy sonn di joxe ay misaal te lu yàgg la di joxe misaal ci lu jege ni mooy dafa bokk ci pexe yi nga xam ne seytaan da koy duggee doomu aadama mooy di la wan ni lii kat amatul ñee kat ñooy nangam ñooñu amatul ci fekk axankee ñu am lañ waxtaan naag nit ah mu di ma wax lu muy dundee ak soxnaam ku yàlla subhanahu wa taala di leen wërsëg teg ko ci loxo mu xëy xëy mbir ma demeetut na mu war a demee kon boobu mu gën a métti nit ku saamu di am saamu di am ba xëy xëy ñàkk kooku wallahi mën naa kuriloo nit ba ngay xub ak xub parce que lu caagi ni yaa bàyyi waaye da nga koo sàmm yàlla na toog lu mel noonu mu ne moom soxnaam dund nañ sax weeru koor ñëw ñu dem ba ngoon jot du ñu am lu ñu ndogoo te bu ñu xëyee noonu la ñuy continuer dañuy wooral yàlla dafa def nag misaal yi ma nekk nii yëpp benn bokku ceeg morom te kenn déewu bi ci ñëpp ngi dund ba tey sunu biir moo tax bu la mbaa tey xamal ni yow la tëf waaye am na ñu la tëful alxatub na ubaydillah imam xasan al basri nee na benn bis dafa jaay suufam ay junni yu bari ci jamono jooju nee na mu tëdd ci guddi gi mënta nelaw lan moo ko teree nelaw nee na mu munul gëm ni ab julit dana fanaanoon lu bari bari mu moom ko dëgg la foofu moomee am koo ko war a dugal ci faasa ci nangam wala génne ko te da nga ko war a génne aayu lii lépp tekkiwul ni mooy bu kenn denc dara bu kenn nang waaye lii def su fekkente ni waxuma la denc alal waaye ki nga xam ne dafa rekk dëkk di delaw te wóor na koy dëkkandoo bii rekkul yan yàlla bi kooku gëmul nga fanaanawul ngëm yàlla subhanallah su fekkente ni da ngaa fanaanee rekk sa bopp rekk fanaanawoo ngëm yàlla boo fanaanee rekk di rekkaale poos nag kon damay xanaa kon bokkutoo ci lislaam lan la war a wax kon saa xam yi la meloon waaye nan la def bi mu xëyee dafa xëy li mu jël tool li mu jaayee ab toolam ab tool moo ko moom mu fànni ko bàcc ci digg bi ay jël di ko wër di ko séddale di ko wër di séddale ñi nga xamante ni ñooy saxaaba yi ridwanullah alayhim ajmain yeneen bi naa ngi ne Ali ibn Zayd moo ko di jëli nee na benn kaw kaw ndeysaan daa mën a ñëw fekk nag mbokkum deret la ci alxam mu dikk daal di koy wax problème yi amoon te waa kër gaag yëpp nekk di ko ba yeggal ni ko ah maa ngi lay ñaan te di ko jaare ci mbokk bi ñu bokk xam nga loolu mën naa nekk wattaqullah tasaaluna bihi wal arham dëgg la yàlla tax ñuy ñaan waaye dama koy ñaanal sukkandiku ngir nga dimbali ma ndax mbokk gi ñu bokk kat ñaan lu koor la allahu akbar salxa ni ko ñaan dama ci loo xam ni bu ma yorul woon lu ma la jox dinaa ko wuti li ma am ci sama alal yëpp la ci gën a valeur mooy benn tool bu ma moom boo xam ne asnaana ma ko ma yor ñaar yi tàllal ko la neex boo ci am boo ci bëgg ma jox la ma jox la tool ba may la ko wala ma jaayal la ko osnaan osnaan jox ma njëg gi ma jox la te mooy li gën a valeur ci li mu amoon suñu borom ne lan tanaalu birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbun aywa yàlla yàlla moo baax maanaam la wax lan tanaalu birra hattaa tunfiqu maa tuhibbun du ngeen gëm yàlla lu dul li nga gën a bëgg ngay joxe waaye xoolal yàlla tedd na la sax cër mu nim maa taxibbu li nga gën a bëgg jël cër jël cër mooy waxu la sax jël nit nit bi da koo bañ ndax asaka bul koy jël danaan boo dikkee nag moo gën a tuub bul ko jël waaye amal sunna ba nag wu gën a yooyu ci leen bu ko jël kon ci ne nagu gën lu bu ko jël parce que moom la borom yaakaar kooku ñu ngi lay dimbali sa yowoo gis nga li ma bëgg a wax ci buntu boobu guddal nañ ci waaye jar na guddal mooy problème mu joxe dañ koo am wallahi doomu aadama ci buñ ci joxe man na cee amee àjjana joo xam ne ñu defar la mbiri ko or mbiri ko xaalis te ay julleem ñëwagut ay waram ñëwagut di nga mas a joxe ba dajeeg waa joo xam ne làmmañ bi dafa ñor xol ci bëgg yàlla di ko tudd kooku bu la ñaanalee yàlla ci lay def def mooy la xol bi sa affaire fa lay jaaree ilal fi jaare baax ilal abadi li mu dal yàlla mu ko digal te nit ñi dañoo defe ni joxe day wàññi yéen yàlla nee na maa naqasat maalun min sadaqa sarax muñ sa mën a wàññi alal da koy yokk laaj leen baykat dugub bi
boo jiyee dugub dugub ji sëq nga yaakaar ni dugub ji sëq noo mooy tax dugub ji bari nga bañ kaa woon ba bisat góob jot foog nga dem ca taat ba ni ko teef xoos yi xoos fee wolli ko ndax boo ko wollee gub bi lu mu gën a taat bi lu mu gën a néewi cër bu màggee ci la gub yee gën a ngant allahu akbar kala fekk ngay wol rek da ngay yàq waaye itam bu fekkee sëqaay bee la ci day ngay soxal sa orlo bi nay ne nan la ko defay noonu dina màgg de waaye bu àggee gub ni taw ay taxantaan moom lay am moo tax nit ki buy joxe yéen ci yàlla dañu woon bi laa joxe wala taxaf min bil arshi iqlaalan joxe yéen ci danoon joxe ba jeexal nit ñëw diis ko soxla moo tax am na ñu ñoo xam noonu lañ mel mënu ñëw gàttal nit ñëw diis ko soxla mu ne ko ah toogal léegi bi soxla dañu ko gis nga yéen ci bi yaa ngi sonal sa borom mënoo ko bàyyi mu def amoo kay amoo yàlla tegul loo mënut fi mu waxee rek benn waaye jóge fële dàmba ko fees dell ak tàndarma xam nga tàndarma moo ëppoon ci liñ am mu jox ko yonent bi yonent bi ne ko waxoon naa la newoon naa la toogal xaar léegi yàlla yi comme ni ko gars yi wax gis nga kon ab jullit dafay tamal boppam di joxe bu fekkente ni junni nga am wala ñaar téeméer te yaakaar naa ñu bari si nam nañ gisee ñaar téeméer nga ne ah daa du ma ci joxe ku am junni mënoo joxe am ñaar téeméer mënoo joxe da ngay boo mu fukki junni du tus doo ko joxe da ngay joxe ci lu ndaw li nga gën a am boo amee lu bari yàlla subhanahu wa taala dimbali la nga mën a joxe ko
tom bi may jeexalee xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu jeexal ko ndax moo jeexal du talxa mooy mawqifuhu yowmal jamal wa shahada fi sabilillah lan moo nekkoon taxawaayam keroog mawqiatul jamal muy xeex bu metti boobu donte comme ni ma ko doon faral di waxee xeex la bu daw la bu yaram boo xam ne bëgguma ko sax a détaillé lu tax du ma ko bëgg a détaillé comme ni ma dafa dugg doo xam naa mooy ay julit ñoo daje ay julit ñoo daje Talha Zubayr Aïcha Talha Zubayr Aïcha ñu ànd ak Muawiya di xeex ak kuréel bi ànd ak Ali ibn Abi Talib doy na waar
moo tax ñu naan ay yonent bi gis naa ko ci nelaw ak ci feeñ na ma wax nangam nangam ak waxi tax tax tàngalangaa yi waxi tappale yooyu dama ne bu amoon yéen su du muy génn di ko waxaate bay saxaabam bi dóorante yi kuur ki deret ni fuur ak sa deret dana génn wax ca loola waaye génn kon gis nga ala samay nabi wax ak allay bi muy Talha Zubayr ak Aïcha dañoo génn ci fitna yooyu amoon nee na bi ñu génnee ñu ñëw ba ci yoon bi ñu gis na Urwa ibn Zubayr dafa tuuti ñu ne ko yow tournel doo dem Abubakar ibn Abdurahman Abubakar ibn Abdurahman ibn Awf dafa tuuti ñu ne ko demal waaye mu ne maa ngi seetlu seen Talha daal benn ñaar ñett ak day ber mu du nangoo toog ci nit ñi te du wax mu ne ko waa Talha lu xew mooy damaa xam ni bërki déem boo jaay bërki déem boo jaay ay nit lañu woon yoo xam ni ah benn loxo lañu woon pour song nekk na nga daal waaye tey ñoo ngi nii nekk ay pàcc pàcc nekk ay kuréel yoo xam ne jullit ak jullit moo nar a daje ngir ay fitna yu nar a am kon mbir maa ngi am waaye neexu ko al imam Zahabi nee na Talha keroog bokk na ci li mu waxoon nee na tey jii faw la bokk ci guerre bi même bu ma ko bëggul dinaa ci bokk ndax dafa am lu ma nit ci woon ci dund ko Osman ba muy faas imam Zahabi mu ne ak càggante gu ndaw la woon ci jàppale Osman te def ko ndax wuute ci ay gis-gis rek nee na loolu taxul bëgg koo fayee ko bis bisu keroog day tax ñu andi def waaye xoolal saxaaba yi ñu ragalee woon yàlla subhanahu wa taala Talha ak Zubayr ñoom ñaar dañoo beru xeexuñu xam nga soo xeexuñu dañoo jëf jëkk rek seen Ammar ibn Yasir di daagu ci biir sàppee Ali ibn Abi Talib wallahi mbokk yi ak am solo nit ki boo meree boo kontaanee boo jaaxlee loo mën a am rek nga ànd ak sa ragal yàlla sa conscience di ànd ak maam laa yajrimannakum shana'aanu qawmin alaa allaa alaa allaa ta'dilu i'dilu ndax huwa aqrabu lit-taqwa bañ seen Ammaar muy daagu daagu ci sàppee Ali Talha ni nit ci loxol Zubayr ne ko ah mbir am na yéen ci yàlla bi yaa ngi fàttaliku yéen bi newoon na Ammaar taqtuluka al-fi'atu al-baaghiya kuréel bi gën a jàng ci kuréel yi ñoo nar ñoo nar a rey te yonent bi comme dañu ko kuréel bi gën a jàng ci kuréel yi ñoo nar a rey te amaar bokkul ci suñu kuréel lii dalul xel nañ dëpp allahu akbar nañ dëpp mu jàpp ci loxoom ñu dëpp mu jàpp ci loxoom ñu dëpp nee na noonu bi loolu amee nee na mu laaj Jubay ni ko ndax déggoo yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax ni Ali ibn Abi Talib ñi nañ xeex ak moom waaye dañ koy tool mu ne ko est ce que dégg nga loolu mu ne ko waaw mu ne ko kon nag amatum lay dañ dëpp allahu akbar ndeysaan gisuñu bokk sax ci xeex na dañoo dëpp ba ci yoon wi ah bi ñu demee bay ñibbi si benn waay bu ñuy wax amru ni jarmuus amru ni jarmuus moo tànni benn xet rek dóor ko ci loosu Zubayr fekk ma nga yibbi xala Zubayr tëddee Talha moom ba léegi xamul sax ku ko rey waaye yonente bi dafa waxoon benn xadis bu neex mu ni bashir qaatila Talha binnaar xaw ma ku nar a dayax talxa waaye bu ngeen koy bégal na ngeen ko bégal bégal ni day dugg safara te loolu am na mu zahab yi ñu ngi koy infli ci siyaar noonu ñoom ñaar ñu ànd ci ñibbi si lii ñëw ba jëm gaay koom dañuy daw rek ñu bett leen di dee am na ñuy wax ni sax Marwan ibn Hakam moo ko faat allahu alam yàlla xam waaye daal dóor nañ ko bal mu daal di faat noonu la faat kon noonu la daal di génnee ci kuréel bi daal di faat lay faat bi mu faatoo Ali ibn Abi Talib bi gerte jeexee mu daal di koy romb bi mu ko rombee seen ko xam ne kii Talha la ah allah mu sëgg ci kawam joo ba sikkim bi tooy mu ne wallahi fekk la nga dee nii man Ali ma dee woon vingt ans avant tey moo ma gën a loolu ma dee woon vingt ans bañ koo fekkee te ñoom ñaar ñoo doon jàkkaarloo ñoom kuréel yooyu ndax fitna yooyu doxoon seen diggante noonu Talha daal di faat ci xare boobu kon moo tax Ali na bi talib tiim ko bi mu ko tiimee mu ne ko wallahi maa ngi yaakaar ni man ak yow dinañ daje te yàlla ñu am ngërëmal yàlla jëm doon wax naan wa naza'naa maa fii suduurihim min ghillin ixwaanan alaa sururin mutaqaabiliin ñu ne noonu doxoon na seen diggante waaye yàlla mu ñu rocci naan lépp tey ay mbokk lañ mu ne maa ngi yaakaar ñu am ko ca kanamu yàlla li may jeexalee mooy xafidahu llahu baada mawtihi nit buy dund mu ragal yàlla mu dëggu ci waxam mu dëggu ci jëflanteem du lekk yëpp jàmbur du fen du tuumaal mbokk jullitam lu yoonam nekk lay dugg lu yoonam nekkul du ci dugg rafet njot ci lépp wallahi yaxfaduhu llahu fi dunia wa fi alaxira yàlla da koy sàmm ci àddina sàmm ko alaxira amma sàmm ko àddina gi mooy li ngeen gis ci dundam lan mooy sàmm ko alaxira gi salxa faatuna ba fanweeri at ak juróom wala fanweeri at ak lu topp doomam bu jigéen bu ñuy wax Aïcha binti salxa tëdd ba guddi gént bàyyam ci ay nelaw bàyyi ji ne ko fi ñu ma suul arrangé wu ma dara dara dara dara dara sulli leen ma changé palaas bi Aïcha bint Talha yeewu wax ko borom xam-xam yi ñu ne man kat ah bu doon mën a bu doon mën a bu ma yeewoo du ma ko ñemee wax ñun ñi nga xam ne bu ñuy bu ñuy yenn yenn di kàcc di kàcc di kàcc ni ngay yennoo kàccee noonu la say gént di kàccale doo ko ñemee wax da nga xam ne ni gént di kàcc la waaye boo dëggoo ci sa dund da ngay am yaakaar ci loo gént mu nekk dëgg bi ñu ko waxee borom xam-xam borom xam-xam ñu ne ah ñu ngi am yaakaar lii gént ak dëgg la kon nag nañ ko sulli te loolu mën naa nekk bu ñu gisee àll yi tax ñu sulli néew subhaana al malik al aala subhaana lil jabaruti wal malaku fanweeri at ak juróom bi ñu ko sullee cëti kawar yi moo fa nax cëti kawar yi nekk ci sikkim bi ci naam bi kese moo fa nax yaram wa mel ni démb ci ngoon la dee ñu suul allahu akbar te loolu lim dal ci saxaaba yi bari nañ xam ngeen amr ibn xiram jaabir ci ñaari riwaaya benn bi riwaaya bi dañ dañ koo suul amoo baayam baayam baayi jaabir ak keneen lañ suulandoo jaabir ibn abdullah nee na ma toog juróom-ñaari fan wala juróom-ñaari weer affaire bi daal dëgg dëgg dalul sama xel daal nan la ñuy jàppee nit ñi di leen sorox sorox man daal xaaral ma beral sama baay ba xam bopp bi mu dikkee sulli baay fii la fekk mu commencé yàqu ci xam na ci juróom benn weer am na benn riwaaya xam nga lu mu wax quarante ans ci jamono Muawiya te riwaaya bu wér la dañoo dem ba soxla ci woon ndox buy indi ndox ñu xool xool xamuñ fu tiwa bii jaar ci digg armée rek la mën a jaar te l'islam daganal na bu ñëwee ba gis lu jar ñu sulli néew bi sulaat ko ñu sulli ko sulaat ñu ne kon nañ soxal armée yi pour mën a tiwa ndox bi jaar ci digg armée la ndax foofu rek amul fu mën a jaar ci nit ñu soxla nañ Amr ibn Hiram biñ ko sullee ñeent fukki at bi ñu ko sullee ñu ngi fekk loxo bi mi ngi ko taf fii ci jam-jam bu mu amee woon garab ba muy faatu ci Uhud bi ñu teggee loxo bi deret génn ci ñeent fukki at riwaay ba gam zabi ñu koy njëkk ñu tili ci fiya ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne nit ki ni muy góorgóorloo yàlla tàmm ko ci àddina noonu la koy tàmmee bàllaaxe moo tax ci bunt boobu foofu la dund talxa jeexee nu ngi ci profité di leeralal mbokk yi di leeral suñu bopp wallahi bu nu góorgóorloo wallahi bu nu góorgóorloo yàlla dana nu defal lu mel ni mu defal ñi insha allah wala fi dañ lañu la fi ne woon jógu fii ñu ko def ne woon fi nekkut beneen bi ci des mooy doomu aadama yi kenn ka laay lu mu góorgóorloo rek kenn ka laay ndimbal suñu borom ñu bàyyee wala dina jaahadu fiina ñu ne ndax di yéen na ko subulan ci góorgóorlu yàlla dina ko gis kon lii maa kaana hadisan yuftara du lu ñu toog rek ay nit rek inventé ko di wax déedéet walakin mbir mu am la borom xam-xam yi xaatim ko ñu di ko nit ñi nu ngi ñaan suñu borom bi asmaihi alxusna wa sifaatihi al ula yàlla yàlla sosal defal ñu tawfiq lii bañ a nekk lu ñuy dégg rek waaye mën a nekk lu ñuy jëfe yàlla yàlla defal ñu tawfiq yi jëfe goo xam dafay ànd ak sellal te yàlla rek subhanahu wa taala tax yàlla yàlla dimbali ñu ci mu nekk loo xamante ni dañ cay baatu mu nekk xusnal xitaami insha allah kon dul falxa foofu la jeexee dafa mel ni mooy nekk suñu dars bi mujj ci xayaatu saxaaba balaay koor bi ndax àllarba ji di ñëw tafsir la ni am jëkk topp day jege koor gi jege si kon dars bi moo mucc ci xayat saxaaba incha allah bu ñu arrêté dars yi laal la bu nu borom bi defee tawfiq yi fekk incha allah koor gi jàllee danañ duggaat kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi